très franchement yéen ñëpp wuy ngeen à l'appel parce que justement suñu secteur bi dafa am importance dafa am importance parce que soo amee benn entreprise boo xam ni dina mën a employé cent personnes ou deux cent personnes d'un seul coup ci àddina bi waxuma sax Sénégal wala Thiès rek mais àddina bi yëpp fu mu am rek dañ koy fonk dañ koy euh, considérer et dañ koy soigner pour que mu mën a yàgg parce que day créer ay emplois surtout pour la jeunesse bon Euh, état des lieux mooy euh, maanaam situation tourisme bi ci suñu région suñu région bi euh, soo jógee Joal ba Mboro traversé Thiès bon ñëpp xam ni Thiès sooy génn dakaar foo mënti dem ci beneen région di nga traversé Thiès te soo jógee feneen aussi bëgg a dugg dakaar di nga traversé Thiès par A ou B donc dañu nekk benn région bu importance boo xam ni tourisme bi fii la dooree muy station. petite code bi Saly et donc euh, tey soo demee nii ay booru Joal ak yooyu euh, am na hôtel yu bari dañoo tëjoon hôtel nag su tëjee euh, produits touristiques yi ko wër aussi dañuy sonn dañuy sonn am na ñoo xam ni dañuy tëj am na yoo xam ni dañuy du ñu amati benn entretien bon soo demee booru Mboro loolu nga fay fekk mais soo waree aussi investissement yu bees yi dañoo bariwul fii ci Sénégal ci suñu région bi alors que en terme touristique normalement dafa war a am ay innovation maanaam dafay am lu bees yoo xam ni dañ ko war a génnee ay euh, nu ñuy tabaxee ak nu ñuy concep nu ñuy defee conception nu ñuy concevoir tourisme par rapport ak euh, ñi fa dëkk par rapport dëkk bi fu muy nekk ak yooyu yëpp dañ ko war a gëstuwaat di ko di ko di ko beesalaat euh, pratiquement cinq ans juróomi at yu nekk te ñu nag dañuy toog fii ay depuis def naa ne ay euh, ñaar fukki at a ngi nii xaw ma fanweeri at kenn beesalul dara bon et puis ni ñuy jaayee Sénégal ak ni ñu koy euh, gérer noonu la ñu di ko di ko gérer loolu aussi xam ni daf ñu daf dafa daf ñu xaw a gaañ tuuti. boole ci euh, année yii ñu passé ñu gis dafa am ay paramètres yoo xam ne bitim réew la ñu jógee comme ay Ebola ak et puis visa boobu ñu arrêté bu ñu bi ñu bi ñu dogaloon. bon yooyu yëpp dafa nekkoon loo xam ni daf ñu xawoon handicapé mais bon euh, léegi euh, ñun ñu ngi doogalaat euh, kii bi salon Mboka bi parce que dañu toog ay at yoo xam ni jafe-jafe yooyu dab ñu ba nga xam ni dañ ni il faut ñu jóg maintenant ñun acteurs yi ak artisanat yi suñu xarit yeeg ñooñu ah ñu ni dañuy il faut ñu feeñ jéem a au moins yëngal tuuti quoi affaire yi pour mu xaw a jaxasoo yooyu ah pour au moins ñu wax affaire tourisme Sénégal bitim réew ñu joxe information yi def publicité bi mën a def promotion ñi nga xam ni euh, seen seen entreprise mi ngi taxaw encore bon dafa nekk aussi spécificité boo xam ni xam nga tourisme moom dafa am lu ñuy wax microtourisme ak macrotourisme ah bon ñun ñi ngi féete ci microtourisme mais yëpp benn bi même famille la. bon ñëpp la ñu woo ñëpp ci bokk moo tax sax ñu ni mbokkaa parce que dañ ko boole ak suñu mbokku gambien yi parce que ñun ak ñoom ñoo xaw a méngoo tourisme ñoo xaw a méngoo climat ñoo bokk culture ak yëpp te ñoom tamit dañuy indi seen ay touristes ñuy def ay visite excursion Sénégal ñun sénégal yi aussi dañuy dem foofu donc dañuy def partenariat boo xam ni mooy gagnant gagnant bu am xel bon donc euh, ñi ngi koy def bi mooy juróom juróomi yoon bi lañ ko lañ ko def euh, yeneen yi ñi ngi ko defoon Dakar ak Gambie léegi bon euh, produit la boo xam ni aussi dañ ko créer pour pour Thiès pour waa Thiès yi moomal leen moomal ko seen bopp pour mu mën a nekk aussi ci agenda de la commune de Thiès pour manifestation yi ngi fi am parce que Thiès moo nekk première région. touristique bu Sénégal en tout cas man maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëw euh, fekk si salon bi bon ñun bañ nañ ko ba nga xam ni sax yemaliñ ko yemeluñ ko Thiès rek parce que euh, commune commune Thiès yëpp commune région Thiès yëpp muy Mboro Tivaouane muy euh, Sindia Diass Mbour ba ba Joal ñoom ñëpp invité nañ leen pour ñu mën a ñëw pour def salon Euh, xam nga innovation moom su jàppee rek ba taxaw aussi bon peut-être ëllëg aussi yeneen terroir yi parce que dañuy wax tourisme moom terwaar la patrimoine local la et cetera bon pour pas pack Bakel mën a créer salon du tourisme wàccee si jóge fa dem et cetera et cetera man def naa ni loolu mooy relancer une destination c'est-à-dire ñu développer tourisme intérieur du Sénégal jox ko gëddëm euh, jox ko fayda bi mu war a am ba nga xam ni sénégal yi seen biir sax ñoom. ñoo koy jëkk akimoo mën a voyager ak euh, comme li madame wax léegi ak moyens yoo xam nii dina permettre les jeunes avec leur famille mën a gën dem ci hôtel mais tey ku fi buggoon dem vacance weekend wala nga def fi un mois am na hôtel yoo xam ni yi nekk ci petite côte bi doo fa mën a dem parce que dafa cher parce que c'est fermé parce que même piscine bi sax dañ la naan eh yow est-ce que mën nga dem ci waaw voilà yooyu yëpp il faut que ñu xoolaat ko ñun ñu def suñu tourisme bopp boo xam ne nii Fatou su jógee dem Demba su jógee dem Pathé su jógee dem et cetera voilà un moom la ñuy wax fii waxaat ci aussi surtout surtout entrepreneuriat féminin bon waxaat par exemple jigéen ñi est-ce que ni ñu nekk ci métier bi di ko liggéey est-ce que ñoom góor ñi méngoo nañu ou pas bon xam nga yooyu ay débat parce que soo demee la plupart du temps jigéen ñi liggéey yi leen jox. bon am na dëkk yoo xam ni ah soo demee góor yi ñooy fobeere hôtel yi ah, comme ay Afrique du Sud yooyu wala ay euh, euh, Botswana ah bon ñun fii jigéen ñi rek la ñuy jox ay tâches yoo xam ne nii franchement yooyu yëpp c'est à ñu considérer ko moom nag beneen débat lay nekk mais en en fait dinañ ci wax benn benn concept bu ndaw rek benn lu ñuy wax euh, discussion ak suñu suñu suñu frères yi suñu jarbaat yi nga xam ne étudiants lañu. ci suñu université bi du tourisme bu Thiès. man def naa ni suñu suñu salon bi comme ñuy wax ay cinq ans lañ koy def dafa am routage salon du tourisme moom ba à la dernière seconde à la dernière seconde tout peut se passer donc pour l'instant ñu ngi nekk à 48 heures il me semble ah bon fii leeg demain il y a beaucoup de choses qui sont donc du ma mën a avancer mais en tout cas ce qui est sûr c'est que su neexee yàlla ak toute l' équipe là salon bi taxaw na avancé na maintenant luy xew loolu aussi c' est la découverte c' le tourisme ça va être une surprise et ça sera une surprise à Thiès. Euh, waaw ma ni euh, <laughs> non pour dugg pour dugg.